wala loolu alxuraan la. waaw mais conseil dafa ne ni l'Assemblée. Hmm. ni le président de la République amuñu prérogative wu reporter une élection présidentielle quel que soit les objectifs poursuivis. quels que soient les objectifs poursuivis. léegi c'est-à-dire nekkuñu ci ci ci situation euh, de de de catastrophe majeure comme lors de la euh, pandémie Covid-19 une élection était impossible. Mm-hmm. on n'a pas eu des inondations qui ont détruit tout le pays. Euh, loolu c'était possible dañ ne dañoo am des soupçons ñu ne commission d'enquête parlementaire nga ne et c'est bien que nga confirmer ko c'est une première au Sénégal qu'on porte des accusations sur des juges du Conseil constitutionnel mais loolu puisque c'est une première mais c'est gravissime waroon nañu jox opportunité ñi ko war a saytu ñu saytu ko ci lu gaaw def ko une affaire d'intérêt national mais on semble reléguer ça euh, même pas au second plan au vingt-deuxième plan c'est-à-dire ce n'est pas une priorité faire la lumière euh, sur ces allégations qui ont généré le report de l'élection de priorité. Mieux encore, on a organisé un enterrement de première classe de cette commission d'enquête parlementaire la en ouvrant euh, une information judiciaire dont na nu nous parle même pas buy jël taawam di dem ndànk-ndànk nu mu ko neexee. non mais xam nga man pour man li ëpp solo ci réew surtout nag réew boo xam ne démocratie la xam lan moo am solo mooy banqaas bu nekk nga def sa warugar. acteur bu nekk nga exercer mission bi nga xamante ne moom la la constitution bi ak république bi ni muy doxee dénk suñu jëlaatee li xew nii ñu toog bi ci yàgg groupe parlementaire jóg accusé ay juge xam loolu mosul am bu grave def seen commission d'enquête parlementaire initier benn proposition de loi constitutionnelle wote ko président de la république moom tam dafa am responsabilité mu ne man kat coow bi ma dégg nii ñuy wax ay corruption de juge def ay commission d' enquête parlementaire commencé di voter loi constitutionnelle su ma toogee croiser les bras man ëllëg lu am sama responsabilité la du responsabilité Ismaïla Madior de du responsabilité assemblée nationale du responsabilité Maïmouna Ndoye Faye du responsabilité société civile responsabilité yow la ñuy wax yaay garant du fonctionnement des institutions du keneen nga ne déedéet bàyyil rek mën a croiser sama bras coow li bari na waaye bàyyil ma bàyyi noonu soo apprécier situation bi yow président de la république yow la ñu dénk responsabilité boobu bis boo ko deful nag demee histoire bi na ko dina ko retenir nga gis coow am nga xam ni lii raam ci ñag bi la jëm contestation procédure électorale bi commencé balaa moo commencé sax commencé ñu sax élection yi contestation am mais su boobaa da nga naan man ci sama gis-gis sama xalaat sama conscience lan laa war a def conscience am assemblée moom leen seen consensus def nañ ko def nañu seen commission d'enquête parlementaire voté nañu seen loi constitutionnelle def nañu seen seen warugar président de la république ne man comme ñële commencé nañu wote décret boobu su ma ko su ma ko su ma ko abrogé wul campagne électorale bi dafay commencé te su campagne bi demee ba commencé nit ñi dem ba def moitié campagne bi dina difficile kat nga ne leen léegi élection amatul mu ne kon ba mbir yi leer jël responsabilité am abrogé décret bi mais moom bi mu paree. yemul foofu conseil constitutionnel moom mooy suñu juridiction constitutionnelle bi mu ñëwee def na liggéeyam ànd naa ci ànduma ci conseil constitutionnel bi mu def ku nekk mën na ko apprécier xam nga droit moom dafa nekk boo xamante ni ci sa gis-gis ci sa xam ak ci say argument mën nga défendre benn point de vue mu def mën nañ ko critiquer. yow yow da koy critiquer. am am nga ci ay ay ay réserve. non man am naa ci réserve mais man. mais mais yan réserve nga ci am. aujourd'hui man démocrate la aujourd'hui ci état laa nekk. man dama bokk pouvoir exécutif du ma critiquer conseil constitutionnel. waaw mais mais mais yan réserve mais nga non du ma ci réserve comme wax na ba pare. par rapport à à l' appréciation des textes. j' exécute. Hmm? je prends acte j' exécute su ma demee nag bay def colloque wala muy bind samay livre mais pas mémoire yi nag parce que mémoire yi parce que man dese na ma presque dix ans pour ma dem retraite. donc bindaguma mémoire yi léegi may mun a ci kanam souvent damay dafay am ñu ma dégg ne ma mais man yow foog naa yow paa nga bu màgget quoi man leen bon voilà donc conseil constitutionnel def na liggéeyam dañ koy rafetlu moo tax keroog bu ma demee CEDEAO dama leen ne ñun soxlawuñu Sénégal ngeen ñuy defal ay mission de médiation ñun Sénégal soxlawuñu ngeen ñuy jox ay conseil ñun Sénégal soxlawuñu ngeen di exhorter les acteurs au dialogue bi ma waxtaan ak Stéphane Séjourné ministre des affaires étrangères France loolu laa ko wax ma ne ko ñun nous sommes une vieille démocratie ma ko ñun Sénégal ñoo ëpp li ñu organiser élection présidentielle France ñun Sénégal ñu ëpp li ñu organiser élection présidentielle France ma ne ko yéen bi ngeen njëkk a organiser élection présidentielle yéen 65 la ma ne ko ñun 63 la ñu organiser élection présidentielle ma defal ko histoire électorale bi ma waxtaanee ak waa Union dama leen expliquer. ne le Sénégal est une vieille démocratie démocratie la boo xamante ni fii dañu am benn chance les institutions sont solides te lii rek daf koy wane bi assemblée nationale jëlee ay initiative am président la République jël initiative am conseil constitutionnel def initiative bi conseil constitutionnel annulé lépp annulé décret président annulé loi bi lu président wax. je prends pleinement acte. je prends acte. je vais exécuter pleinement. je vais la décision président pourtant d'accord ci parce que moom gis na ne une loi constitutionnelle le conseil constitutionnel n'a pas loi constitutionnelle mais daf ci ànd.